Abdoulaye Wade je suis arrivé avec mon back en 1980 à l'université de Dakar ma dëkk d'abord au pavillon A alors pavillon A bi ma dëkkoon nag yàlla dafa def benn étudiant boo xam ne libéral la woon mu ne ma ma s'appelait Mamadou Diouf malheureusement après dafa bàyyi avant muy terminer à l'université bàyyi na la libéralisme nekkati woon ci politique ensuite il est parti en France et quand il est revenu il a laissé la la politique mu ne ma ndax xam nga Ablaye Wade ma ne ko xam naa ko kañ il paraît que c'est c'est l'Africain le plus diplômé mu ne ma wuy effectivement mu ne ma daf ma abaloon livre dama ko koy delloo ji ma ne ko volontiers dama lay gunge. ngeen point e. ma dem point E j'ai eu mon premier contact avec Ablaye Wade. comment ça s'est passé je l'ai trouvé très sympathique le vieux puisque dañu dem mu recevoir ñu ci bureau am il de livres là dans le bureau xam nga intellectuel la euh, Mamadou jox ko livre bi ñu ñu ñu toog waxtaan mu présenter ma ko ko quoi ne ma ne ko kii il s'appelle Sitor Ndour il est de Fatick c'est un nouveau bachelier mu ngi soog a ñëw université ak yooyu dama ko wax ne damay ñëw fii mu ne ma il faut mu ñëw puisque daf la bëggoon a gis alors vraiment Wade euh, présentation boobu neex ko mu ne ma alors Sitor comment tu vas nangam nangam tu vraiment un nom de séeréer si Sitor ñu waxtaan avant ñuy dem mu fekk ma jëloon benn livre di ko feuilleté feuilleté mu ne ma ça t'intéresse ma ne ko waaw mu ne ma mën naa la ko abal. ban livre la woon. Euh, euh, fàtte naa ko mais c'était un livre qui parlait du libéralisme. alors mu ne ma. mën naa la ko abal à une seule condition bul ko écorner foo yem c'est-à-dire ci kaw doo ko damm noonu lem ko pour que boo tijjewaatee nga xam ne fii nga yemoon man sama livre kenn du ko def loolu si tu veux tu insères quelque chose fii nga yem ma ne ko d'accord dégg naa ko je prends bonne note mu ne ma et puis na nga ko delloosi ma ne ko dinaa ko delloosi voilà mon premier contact avec Ablaye Wade d'accord après bi nga delloo si waatee livre bi. delloo si naa ko fekk ko fa y avait beaucoup de monde mais il m'avait pris quand même mais bi ñu duggee mu ne ma alors ça t'a ça intéressé ma ne ko waaw ça m'a bien ça m'a beaucoup intéressé ñu waxtaan noonu ma ne ko est-ce que du la gêner bu ma la soxlawaatee ma revenir fi mu ne ma non non non reviens donc jaabante naa këram quelque temps. lan moo la poussé nga militer désormais ci parti démocratique sénégalais. léegi nag après loolu euh, xam nga rek séeréer bu ñëw bu ñëw ndakaaru ñu ne la jàngala fa yóbbu bàyyil politique bul politique bul def lii fekk dem naa bi wax samay parent gis naa lay Wade abal na ma livre ah vraiment sama sama xarit la man li muy def neex na ma les parents moo di eh jàng moo la fa yóbbu politique yóbbuwu la fa donc na nga jàng loolu lañ la sant. je me suis concentré sur les études ba am euh, sama sama maîtrise en droit en 1985 d'ailleurs maa ngi ko amando avec des célébrités de euh, du barreau ñoom maître Boubacar Cissé ñoom El Hadj ñoom Assane Dioma Ndiaye ñoom Mamadou Guèye c'est de grands avocats. Hein. d'accord génération boobu nga amandoo sa maîtrise boobu ñoom voilà ñoom laa ñoom laa kiiyee maa ngi jiitu woon nag tuuti. génération ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom. ñoom ñoom l'actuel chef de l'État. Macky Sall voilà ñoom Macky Sall ñoom euh, ñoom Pape Leyti Ndiaye avocat ñooñu maa leen jiitu woon euh, waaw maa leen jiitu woon université maa leen njëkk a aussi waaw donc donc bi ma amee maîtrise na boobu fekk na maa ngi doon taquiner politique bi puisque samay xarit yi saa wu ñu doon def inscription sur les listes électorales on était jeune on n'avait pas de carte d'identité mais dama leen da woon ñoom ñëpp dajale leen yóbbu leen ci commission yi benn table bu ñu tegoon ci benn suuf garabu mango ci keruk mango foofu Fatick bu ma ñëwee ma ne waa commission bi nijaay dañu ñëw pour inscrire et bizarrement on nous inscrivait sans pièce d'identité sans extrait de naissance rien tu donnes ton nom sa turu papa sa turu yaay on met profession élève jeex na xam nga jamono yooyu démocratie amuloon te élection yi parti socialiste xam nañ naka lañ ko doon doxale euh, moo tax ñu doon am ay ay score soviétique jamono yooyu c'est ça qui nous avait permis ñu inscrire et ñoom dañ doon supposer ne bu élection yi ñëwee ñoom la ñuy voter puisque jamono yooyu booy voter boobu isoloir amul isoloir ñun ñoo ko xeex ñun bokk naa ci ñi ko xeex ba mënooyu isoloir amul te da ngay ñëw fekk délégué de quartier toog notable yi toog say waajur toog ñu ne jëlal jëlal bëri dugalal ci envolop bi dugalal fii nga dugal dem sa yoon. d'accord alors naka nga def nag cette fois si ba sauter le pas. c'est vrai que pour cette fois-ci engagé wu auprès du de l'ancien chef de l'État maître Abdoulaye Wade dama dem euh, seen bi ñu affecté ma professeur de droit. lycée Pétavin. lycée André Pétavin bi ñu ma fa affecté. Euh, l'année qui suit ma war a def le discours à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix fekk maître Ousmane Ngom nekkoon ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. d'accord c'est-à-dire temps yooyu maître Abdoulaye Wade des fois il lui arrivé mu dugg ci gouvernement socialiste bi. Voilà, euh, ak voilà. quelques membres de son parti. des fois ñu génn aussi. mu ñëw présider ko ñu pare ñu waxtaan dem. toog añandoo et tout. ma ne ko mais écoutez man je suis libéral hein moi je suis du PDS mais peut-être euh, du ma bouger à Saint-Louis je à Saint-Louis je pense que c'est pas opportun ma politique fii mu ne ma oh que si si tor danga nga war a politique fii j'ai besoin de cadre comme toi mu boolee ak benn euh, chef de cabinet bu tuddoon Amadou Touré sama benn mag ju baax et ma engagé wu en politique li yàlla di dogal mu mel ni Saint-Louis laa juddoo bi ñu demee woote def suñu bureau bu parti démocratique sénégalais Ousmane Ngom moo nekkoon secretaire général ma nekk la secrétaire général adjoint. kon loolu moo indi seen proximité entre vous deux peut wala loolu moo ko indi et alors que en ce moment il y avait tous les cadres de Saint-Louis hein tous les cadres ñoom Bayla Wane ñoom ma Masseck Ndiaye ñoom Omar Sarr mii nekk euh, ministre. qui venaient de Dagana, mais c'était la région de Saint-Louis en ce moment, c'était toute la région. Il y avait énormément de cadres qui étaient là-bas. ngeen commencé. militer à Saint-Louis mais def ma numéro 2 du parti dans la région. c'était en quelle année. Mmh, bon disons ça devait faire. peut-être 90. non 91 92. peut-être côté yooyu la. d'accord ay 92 nga commencé militer. ma militer à fond et yàlla dafa defoon jamono yooyu euh, bi ma nekkee professeur. télécentre di soog a xew ma tijji ci quatre télécentre à Saint-Louis à Saint-Louis waa ñu ngi may dégg waa Ndar ak may dégg ma tijji ci quatre sept télécentre mais pourquoi Demba c'est vrai que yaa ngi doon dund. à Saint-Louis. Mhm. nekk professeur. lycée André Pétavin mais lu tax xalaatoo woon. dellu fi nga xamante ne moom mooy sa base naturelle pour tàmbali pour politique foofu. mënatuma ko woon puisque Ablaye Wade tenait à moi et à Saint-Louis. il fallait ngeen gagner fiefu Saint-Louis bi. gis nga dama la wax ne dama tëji quatre télécentres et je suis allé à fond gis nga PDS jamono yooyu opposition dañ doon cotiser pour def réunion bu ñu doon def réunion dañuy loué ay banc traversé yu gudd yooyu chaise loon chaise cent francs yi amuloon da ngay loué ay banc ñaata ngeen ko daan loué. ñu ngi doon loué benn banc cent francs banc bu gudd mu mën a jël vingt personnes ñu ngi ko doon loué cent francs ngeen ci daan loué d'habitude dañ doon loué à près peut-être euh, ay 6 à 7 puisque euh, PDS jamono yooyu ñi doon militer dëgg-dëgg sympathisants yi lañ bëri woon ak ay électeurs mais ñi engagé woon di militer dëgg dëgg dëgg bëri wuñu woon d'abord te ensuite jamono yooyu engagé wu en politique nekk adversaire u parti au pouvoir dafa jafe woon ma ma j'étais fonctionnaire mais lu ma ci déggul amul lu ma ci dajul amul. alors ngay am sa ñeenti télécentre di ci am ñaata pour mu mun la permettre nga nga continuer ngeen mën a seeni activité politique jamono yooyu may financer le PDS à Saint-Louis waa Ndar ñëpp ak may dégg fi mu nekk nii lu ñu joxonoon ma dagg lu ñu doon def man may dugal duma xaar kenn cotiser Ablaye wat xamoon na ma avant dégg na ma après xam na ni ni kii gaa yaa ngi koy rendre compte mu dal di ma jàpp ma représenter les cadre de Saint-Louis à la coordination nationale des cadres jamono yooyu ku ñuy wax Cheikh Touré moo ko jiite benn ingénieur